cinquième cinquième ma di leen sant di leen gërëm bu baax a baax a baax ak accueil bi am mbégte ñëw fii ci parcelle li ci topp laa mënul tudd parcelle non assainie parce que bu dee parcelle assainie la li fi xew ci ay jafe-jafe du fi am parcelle yi ñun bu ñu ñëwee au pouvoir incha allah à partir du 24 mars dinañu assainir les parcelles incha allah ñu ànd ko ak waa Grand Médine ñu defar ko ñu assainir suñu cadre de vie def naa ko ci Niger def naa ko ci Ghana def naa ko ci Gambie def naa ko ci Mali def naa ko ci feneen ci rek li jëm ci réew yooyu bu waa senegal waa parcelle lay wax bu ñu tegee réew mi ci sama loxo je prends l'engagement de régler les problèmes d'assainissement et d'inondation de, de parcelles assainies loyer bi cher na nit mënuñu fay loyer bi nga xam ne moom lañ leen di imposer logement yi appartement yi yi doyul loolu am na ci programme loo xam ne bëgg nañ ko incha allah def cent mille logements dafa ndaw li ma bëgg mooy un sénégalais une maison un sénégalais un droit loolu important sénégalais bu nekk ki nekk ci mbedd mi di jaay muy marchand ambulant bi muy nappkat bi muy béykat bi muy ku mu mën a dafa am droit am logement am kër ñu dugal dugal ci njabootam dugal ci waa këram incha allah bu ñu ñëwee ci réew mi loolu dinañ ci taxaw li may mujjee wax fii ci parcelle xam ngeen ko mooy problème mu jeunesse bi nous voulons plus nos jeunes qui sont aussi brillants, qui sont remplis de talent, qui ont de la créativité, quitter notre cher pays pour aller sombrer dans l'Atlantique. Moi, je dis aux jeunes Sénégalais, aux jeunes de, des parcelles, ne partez pas, restez ici. On va faire ce pays avec vous. On le fera pour vous. Vous allez contribuer à l'effort de construction, à l'effort de développement de notre cher Sénégal.

Nous pouvons le faire. Nous l'avons déjà fait et nous le ferons au Sénégal, Inch'Allah.